wax ci loolu laa yaa tax ma ñëw ci làmb ji yow yaa tax ma ñëw ci làmb ji dama laa wër ba soro nam la xam nga yow ndaanaan nga ci li ngay def waaw mais yi ngay sol doo ma ci abal man naa la jox benn yow dama la ciy jox benn xeeti caay dama la ciy dóor benn yow bul wax dara sama gaayan nga mais gars yi nañu diggante ak liiru jaan ku ci daan ñu jox la barki rasulaay bu ngeen ma joxee liiru jaan dinaa ko duma duma yoo xam ne yéen ñi teg combat bi dañ leen leen convoqué gendarmerie attends yow yaa man liiru jaan bés boo ma joxee Lirou Diane yow mi tegu combat ak ñi ko fekkee ak ñi ñëwoon ci stade bi ñëpp lañ plainte tëj leen 10 ans de prison ndax dóor yi ma koy dóor. mais sama mbéy la gën a nekkul waa ji baax yow jaaxaanoo réellement parce que ñi lay réclamé ci làmb ji dafa bari est-ce que doo njëkkee ci wulli soo nga dem ci Lirou. te gars yi duñ leen plainte Sénégal te États-Unis lañ leen di plainte ñi tëgg làmb ji dañ koy plainte ndax door yi may door waa ji. mais ñu laa jox yaaw jaal mu gën a. waaye ma nag yow nag gis nga mere naa la trop. mais ndax la yaawu jaal xanaa yow Diallo gën a toll ak yow. xanaa dama koy SFO dama koy SFO rek ñibbi SFO laa ko def ñibbi. mais liiru jàmm jox ma liiru ma lem ko teg ko fële wulli moom xam na ma xam.